ziar nañ leen nag foo leen mën ci nekk rek ñu ngi leen di bàyyi xel sur la 7 TV la télé qui nous rassemble et nous rassemble ñu nekk ci seen émission 7 voix du cœur comme nu ñu ko tàmm defee mardi bu jot rek ginnaaw bu 21h jotee euh, semaine bi nag euh, muy semaine bu diis ci li nga xam ne rek euh, mooy réew mi muy semaine bu metti ndax nag gis ngeen li nga xam ne rek dund nañ ko fii ci Mbour. loolu indi ñu fi euh, muy euh, ci dëkk dëkkaat yëpp nga xam ne nekk na Mbour ndax nag foo dem am na li nga xam ne rek euh, mooy maanaam dese ci mbëkk mi ma nga xam ne xale yi def nañ ko mu bëri lool lool lool lool lool ay victimes ñu mën cee lim sax euh, lu bëri bëri bëri loo xam ne daanaka da ngay lim sax doo ñemee tudd nombre bi ndax daanaka am na sax ñoo xam ne gisaguñ leen euh, mu nekk métti nag ci Sénégal lépp rawatina doomu Mbour tey ñu ñëw bokk ko ak ñoom jamono ji may wax ak yéen ñu ngi fii ci fi nga xam ne mooy Mbour coosee muy fi nga xam ne nag fa la yëf yi gën a métti ndax lu ci tolloog euh, lu mel ni fukki nit ak euh, ñeent bu ko ëppul wala mu yées bëgguñoo wax ci yoo xam ne maîtriser wuñ ko ci même quartier bi la ñu dëkk ci yëf yi dafa dal ci seen kaw mu metti lool ñu ñëw nag seet si famille boo xam ne euh, xale bu ndaw la mu ngi judd en 98 muy Fallou Diop. Fallou Diop nag euh, tey dañu sekk waxtaan ak waa këram dañ ko sekk ak ay kilifaam naka la dundee woon ci hommage euh, jaare ci moom rek jaale waa Mbour yëpp ñi nga xam ne rek yëf yi dal na ci seen kaw ñu dalal ki nga xam ne mooy ibu Ndaw ah. euh, di xarit benn bakkan ci moom bañ nekk xale ba léegi ñooy ànd for nañ ci yu boy sax ne ñoom ñoo duggandoo sax école même hmm. jour ma bàyyi la Ibou nga daal di nuyoo daal di nuyu ñi seetaan ci seen émission 7 va set 7 salaamaaleykum mbokk yi mu ngi leen di nuyu yéen tamit di leen masawu tamit ci déplacement bi man maa ngi tudd ibu Ndaw di xaritu Fallou di xaritu benn bakkanam maanaam ba ñu juddoo ba ba ni ko yàlla jëlee nii ñun ñaar ñoo doon ànd waaw mu nekk xarit boo xam tamit xarit bu baax la ku ku dëggu la ku ku ku bëgg dara la. waaw wax dëgg fa yàlla. Euh, mu nekkoon xarit bu bu dara bu dëggu euh, koo xam ne jàmbaar la woon léegi-léegi dinañ ko gis témoignage yi benn la laata loolu Ibou ma bàyyi la rek nga wax ñu ci affaire yi ni mu demee ñëw daanu ci kaw euh, seen kaw naka ngeen ko yëgee. waaw affaire yi moom daanaka dara bett mi si. Mhm. parce que Fallou sama xarit la maa ngi moom mosuñu am lu ñuy réeroo. amoon na ci man confiance man tamit amaan na amaan na ci moom confiance parce que ñoo juddandoo ñoo defandoo lépp li xew nii nii man mii dama cee engagé woon dama cee engagé woon pour dem parce que man dama génnoon dem nekk chantier mu woo ma téléphone ne daam lu ma la bëgg wax lu sérieux soo ñëwee ñu waxtaan ci ba ma ñëwee fii laa ko fekk ay nit ñu bëri. loolu kañ la. loolu avant màggal gi la. avant màggal waaw. léegi ba moo nee daam am lu lu ma la bëgg a wax nañ dem fee ñu toog fee maag moom rek ci banc bi maag moom ak yàlla rek mu expliqué ma lii ba mu expliqué lii nag man mii dama engagé woon na boo demee man engagé naa quoi damay dem waaw mais après damaa dem ba ci biir maanaam sama xel génn ci carrément bëggatuma dem bi mais yàlla loolu na ni man bokk ma ci programme boobu Mm-hmm. mais maanaam waxoon nga ko na la boole ak ñoom ba yow da ngay da ngay bokk. waaw ñoo doon ci waxtaanee chaque jour. Mm-hmm. mosuñu séeréeroo chaque jour ñoo doon ci waxtaan. di ci nekk chaque jour di ci defandoo lépp mais man dama toll benn instant boo xam ne rek dafa mel dañ ma cee génne carrément. Mm-hmm. waaw léegi nag euh, kon moom euh, ba bi muy xam nga ne moom day dem. waaw xam naa ni xam naa ni day dem. mais xam moo ni bés boobu lay dem. bés boobu waaw parce que samedi bi maag moom ñoo nekk ba bët set. barki alxuraanu karim. samedi samedi te ñoom ñi ngi dem la dimanche. ñu ngi dem dimanche ay mais dimanche yàlla def na ni toute la journée gisante wu. samedi ay six déggoo ko téléphone. dégguma ko téléphone samedi ay 6 heures du matin lañ mujjee gisante te boobu ñu ngi taxaw fii nii mu ne man damay dem jëmboo fajar ma ne ko non man damay tëddi ba ci kanam affaire yooyu noonu mu ma kon ci kanam maanaam kàddu yooyu la ñu mujjee échanger man moom. Mm-hmm. waaw euh, kon yëf bett na la. Euh, bi nga ko yëgee. Euh, naka la demee waaye laataa loolu sax dañuy ñëw ci fàllu lan nga ñu mën a wax ak moom ci moom ban genre nit la woon. Ah, soxna si Fallou de mën naa la wax ci ñun lu bari parce que Fallou lii rek moo ñu mënoon a tàggale ñuy dee parce que dañoo judd yàlla boole ñu ñuy ànd man ak moom ak suñu beneen xarit bu tukki waaw moom boobu ba léegi dafa am problème. kooku ba muy tukki fu mu fu mu aw ci gaal yi wala. non awul ci gaal yi. une voie normale la. parce que élève la doon jàng. mais ñun ñett ñëpp ñoo juddandoo ñoo defandoo lépp. Mm-hmm. Fallou sama caabi néeg sax su ma génnoon dem liggéey moom moo xam fu mu nekk moo koy tijji dem tëdd ba bu ko neex mu génn ko dem entraînement mu nekkoon nag nit ku dëgg Fallou du tricher man mosuma dégg nit yóbbu ko police wala Fallou moo jël alalu nangam. Mm-hmm. barke Seydina Mouhamed. waaw ah dama doon jël sama xaalis dugal ko ci néeg bi bu ñëwee ibbi ko bu seetaanee ma see pare génnaat dem ubbi sama caabi nekk sama ma si génn dem waaw nekk nit ku maanu ku doylu te ku mas a gëm boppam la ku mas a masul topp ci ginnaaw kenn mm-hmm. lépp loo dégg ci waxam danaa la man moo ci génn 98 euh, la judd nekk xale waaye terewu ko am jom terewu ko làmb fu nekk nan euh, nga ñu mun a wax ci maanaam li yi mu doon liggéey yëpp ndax euh, jàpp nañ ne tayal la woon daan na ñaw daan na yëngu ci wàllu football te teewul tamit fu mu gis li opportunité liggéey dina dem daal di ciy dóor waar. waaw wax dëgg fa yàlla loolu rek nit ko am jom mooy def lool mhm. Fallou mosul toog mosul ñàkk jom daan na liggéey téer liggéey bi mu mujjee liggéey nii mu ngi doon liggéey université mooy kudd kudd waaw benn jour wax naa ko téléphone ñuy waxtaan maag moom barki Serigne Touba ak waxtu bi yàlla bu ma raw ma ne ko boy naka foofu mu ne ko boy fii de amul dara xanaa kay dañ ciy jàpp rek pour mooy lool mhm. carrément ma ne ko non yàlla day am lu gën loolu yi ay jàppandi la rek mais mosul gëm ni moom maanaam malgré liggéey bi taxu ko woon baax noonu mais jomam mayoon na ko mu toog ci di muñ waaw bëggul woon toog daal mhm. waaw te bëggul te dépendre ci kenn mhm. Fallou masul dem ci kër kenn di la wax problème parce que nit ku gëm boppam la nit ku dëggu nit ku am fulla ci boppam la te lépp lu mu bëgg a wax nit day taxaw wax la ko après bu paree bu pare pare na ci waaw mhm. maa moom yàlla def na ni xeex sax suñu koo def dañuy werante ba bët set bu ñu xëyee ñu àndal Euh, sa xarit la woon euh, muy Ibou Ndaw di xarit ci euh, Fallou mbokk yi li ñuy def mooy dañuy dem seetaani témoignage yu way juróom bu góor léegi léegi lay doon sur la 7 vie ci seen émission 7 voix du cœur. yëg bi moom yëg-yëgu jullit rek parce que yàlla bu jëlee mbir teg ko ci sa kaw ngay jullit juddu ci nàmp ci yaru ci doon taalibe Sëñ Tuubaa gëm rek nangu. dañuy nangu dogalu yàlla amuñu ci benn métit ndax buñ ko métit loolu day mel ni dañoo weddi suñu borom te lii mu choisir ba def ko moo gën xamuñu moom lan moo tax mu def mais li mu choisir ba def ko moo gën man moom awma ci benn naqar wax dëgg yàlla xanaa sant yàlla di dolli nag di doon ab taalibe rek seen kilifa yu góor yi duñ ko yëg kilifa kilifay jigéen nag mënul ñàkk ñu yëg ko mais man ci sama kaw lal may nelaw lama ma magam bu jigéen woo téléphone ne ma sëñ Fallou de nee nañ bokk na ci gaal gi suux démb booba sax yëguma ne gaal suux na ma ne ko ah mën ma waaw ma toog beneen instant xaritu benn bakkanam bu nekk fële ci liberté woo ma ay minuit et quelque sama téléphone sonné ma ne lii de du jàmm mu woowaat ma wax ma ko une heure après sama doom bi yor oto bële ñëw gaar sama buntu kër woo ma téléphone ma jóg mu ne ma maa ngi ci buntu kër gi ma ne ko yow heure bi buñ jógee fu ñu jëm ñoom ñu ngi ci biir géej gi xanaa kan danañ bàyyi ba suba ñu jóg a jéem a dem seeti mais heure bi fu ñu jëm boobu kenn gisu ko instant bi ñu ko defee c'était le dimanche ci guddi ba sedd lundi ñu ànd dem géej fa lañ nekk nekk nekk ba affaire bi kii gars yi ñibbi ñu ni tam ñibbi sapeur ñibbi police ñibbi bërki démb bërki démb la feeñ ñu saraxal ko démb waaw bi muy feeñ ñun gis nañ ko ñun ñoo ko suul defar bàmmeelam defar te sampal ko tableau bind fa turam mais am na ñoo xam si ñi mu àndaloon kenn xàmmewu leen kenn mënu leen identifier gisuñu kenn ku leen identifier. mbir mu doy waar la boo nga xam si faj ko du yomb dina yomb mais volonté politique moo koy faj lu bëri da ciy ànd parce que population bi aussi dañ cee war a bokk parce que ki nga xam ne mu ngi defar gaalam war a dem ci biir géej am na ñu toog ci koñ bi fi mu koy defaree xam ne kii gaal gi muy defar nii géej la jëm ñu dénoncé ko mais population bi dañ naan kii sama mbokk la tant que sama mbokk la mu ngi fi duñu dem tant que masla mu ngi fi du ñu dem tant que ragal wax dëgg mu ngi fi du ñu dem. regretté bi may regretté li ma ci njëkk a mooy xale yi ci seen bopp dañoo sole xamatuñ fu ñu jëm. xamatuñ fu ñu teg seen tànk li leen poussé mooy bëgg a am am am am léegi dimbali seeni jur léegi te yàlla neewut waaw lii rek lay jur xale bi ñuy wax tey jii nii mooy sëñ Fallou 92 92 98 la juddu mais 92 la juddu dafa dafa doon football dafa wàññi atam. tailleur la woon am en même temps mais bi muy juddu année bi mu juddoo un an après matul sax un ay neuf mois huit mois ci la ñu compressé ñun Savana parce que man Savana la nekkoon ci la ñu compressé bàyyi ñu ak njaboot gu sew ñoom problème boobu moo leen topp seen éducation baaxut kenn jàngu ci parce que ñoom ñëpp. ñoom ñett moom rakkam magam bu jigéen ak rakkam bu jigéen ñoom ñëpp benn année la ñu bàyyi école parce que amatuma moyen seen yaay amul moyen xamuñu fu ñuy teg suñu tànk kenn dimbaliwuñu loolu moo leen topp nii galas nag yàlla def na mu doon nit koo nga xam si yàlla wàññi na ko boole ko ak àndandoo yu baax muy xaritam yi ak ñeneen ñi may wax mu bokk ci cantaakun yi doon na liggéey kudd aussi mais bi Maguette Sène mii bi mu nekkee directeur kudd ci lañ fa jóge lañ leen arrêté xama ay travaux xama lu kenn xamul daal mais boobaak léegi dellu delluwaatu ci loolu la nekkoon lépp lu mu doon def mooy jéem a lijjanti ay waajuram lu mu leen jox man bu ma daan jox sax du ma ko gis daf may daw wax dëgg yàlla daf may daw nangu maa gis magam bu toogoon fii tey dina firnde sama mag man daje naag moom yor oto di ko di ko yóbbaale xamu ko mu di ko nëbbutu biñ ko ko feeñalee daf na leen papaam daf ko ne doo dem seeti sa papa mu ne ko bu ma wàccee ci oto bi fa laa jëm mais dafa daw parce que bëgguma gis te yorul dara te affaire boobu moo jàpp xale yi yëpp yëpp même sama doom yi ma nekkal nii suñu amulee dara duñ bëgg a ñëw gis ma man leen yéen li ngeen bëgg a doxeel àddina du noonu du caagee ne da ngeen a war a am pour ngeen seet seen wayjur mais seen wayjur da ngeen ko war a seet di sàkku ñaan di leen ñaanal bu ngeen yoree ak bu ngeen yor mais xale yi dañoo réer moom ak ñi mu àndal ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla teeru leen moom turandoom teeru ko moom sëñ Fallou tàbbal leen arjana aljana firdawsi te bañ leen topp dara ci àddina parce que li ñu def defuñu ko ngir ak bon defuñu ko ngir dara lu dul dimbali ay waajur ñoom du ñu ñëw ci seeni waajur jël info jël conseil parce que dañuy ragale ñëw pour ñu wax leen lu ñu àttanul mais suñ doon ñëw ci ñun di waxtaan ak ñun du ñu dem man bokk man sama doom bu waxtaanoon ak man du dem mais nag defuñu ko léegi nag li ma leen wax moo di population bi yëpp na ci jàpp du état bi dong moo koy faj du police dong moo koy faj du gendarmerie dong moo koy faj il faut que ñëpp bokk ci ñun ñi nekk ci booru tefes gi nga xam ne ñoo ngi gis nit ñi di defar ay gaal ku ci gis gaal dégg naa président de la république di wax démb ne dinañ joxe benn numéro vert pour nit ñi di ci woote ku ci gis loo nga xam si teguwul ci yoon nga woo police mbaa gendarmerie nga informer leen ñu dem seeti ko même su fekkente ne duñ ko jàpp ñu bàyyi xel kooku di defar gaal ba xam gaal googu muy defar bu paree fu mu jëm loolu yëpp il faut population bi jàpp ci mais police ak gendarmerie kese mënuñu ci mënuñu koo jàpp parce que matul. jërëjëf dégg ngeen ko kon nag li ñu wax rek ne xel dal na. ndax nag euh, li mu wax leer na euh, du ma bëgg teg ba tànk yorul loo xam ne teg na ko sama loxo euh, Ibou lan ngay àddu ci loolu ndax daan na waxtaan ak yow ci ay waajuram ci ambition ndax tey jii li papam wax dégg nañ ko muy loo xam ne daw na yaram ginnaaw bu mu dëddoo du ko bëgg a gis tànk amul loo xam ne mën na ko teg ci loxo. waaw dañ doon waxtaan ci loolu lu bari mais maanaam moom lu mu gëmoon chaque jour mooy da war a génn mm-hmm. dimbalay waajoo Fallou daan nañu waxtaan lu bëri mosuñu réeroo dara daal ma wax gëmloo ni man dama cee war a génn. Mm-hmm. oto day romb sax oto bu rafet mu ne la mu ne booy oto yi dañ ciy am de. barke Seydina Muhammad. borom gëm-gëm la woon daal gëm-gëm la woon. te gëmoon na ko maanaam lii nii xew nii waxtaan naa ci moom benn instant na ko ba nañ bàyyi mu sedd mais nit ko war a dem rek. Mm-hmm. waaw gisul woon. biñ ko ko waxee lu mu la wax. waxaatuma waxuma waaw waxuma déet mais boobu daal bëgg samay wax ci loolu. Mm-hmm. boobu gisul boobu daal décidé na. décidé na pour dem. Mhm. maanaam ak yeneen booy yi dem yëpp ay booyam lañ. te samedi ñun ñëpp ñoo nekkandoo fii. kon daanaka ñi dem yëpp euh, ñoom ñi comme niñ ko gisee fii ci Mbour Coose mu nekk maanaam famille 14 euh, famille yoo xam ne rek am nañu ay victimes ñoom ñëpp daanaka ñoom ñëpp xamante nañu. même koñ bi la waaw soo si ñun suñu koñ bi yàlla dañoo dimbali ci benn affaire koñ bi amul morom boo gisee ñu ak suñu grand yeeg suñu booy yeeg ñëpp ñooy toogandoo. ñooy naanandoo café naanandoo ataaya. Hmm. kenn ku nekk boo waree liggéey liggéey ki war kii war a dem benn activité dem defi ko maanaam fàllu samedi bi ñoo toog ak boo yëpp dañuy balance ba bët set ci la dugg këram si meeku ma romb ko fii mu taxaw moom kase yor benn bale dégg naa bale boobu sax ba ma yeewoo moom la balee koñ yépp yëpp soo ko dem topp tànkuram moom si boppam waaw mm-hmm. nekkoon nag nit ku baax nit ku gëm boppam mm-hmm. foo ko gis reetaan ngay man li ma ko ñemee woon a wax ñëpp ñemee ko ko wax. lu ne laa doon ko wax mais mosuñu am problème. Mm-hmm. dañuy pare àndaat si jàmm lépp ñu portale ko sama téléphone bii nii ay vocal yu bëree mu ci mm-hmm. vocal yoo xam ne foo nekk. affaire yooyu noonu expliqué suma ma gis toog mm-hmm. gisuma bu woom waaw. lan nga ñu mën a wax ci maanaam euh, comportement am ci koñ bi ak yéeneem. waaw comportement am ci koñ bi moom moom ñëpp la amal jàmm ñëpp amal jàmm. fàllu booy gisee xale xale yi ñooy ay xaritam maanaam ñëpp la amal jàmm képp moom benn jukko jullit daal moo nekkoon ci moom parce que ku dëggu la hmm. du wax dara ci ginnaaw nit lépp lu mu war a wax nit ci kanamam la koy wax hmm. après bu jeexee jeex na man sax benn instant ma doon ko wax naa ko boo yor nga am sañ-sañ am na yenn yoo xam ne kii wër hmm. mu ne man xaw ma loolu nii laa mel Euh, dañuy dem xooliwaat témoignage ay xaritam seede bi benn la woon euh, ku dëggu la woon ku baax la woon waaye tamit nag ku amoon yërmande ci ay waajuram la woon euh, ni mu nekkee sa xarit noonu la ñuy dem seetaanee soxna si nga xam ne rek moom it xaritam la woon daanaka daawuñu tàkkalikoo léegi léegi ci témoignage ndax woo na ko wax ko ne damay dem waaye li ñuy wax ne rek ku repp du neexate ñu déglu ko ci témoignage léegi léegi lay doon sur la 7 bi ci seen émission 7 waaw man moom wax dëgg yàlla tàggu na ma ndax daa nekkoon koo xam ne damaa jege woon lool waaw waxoon na ci man. Mm-hmm. ñëwoon dafa ma woo téléphone ne ma dama fa bëgg a ñëw ma ne ko loxew mu ne ma dafa am lu ma la bëgg a wax. Mm-hmm. ma ne ko wax ma ko ci téléphone message ma whatsapp. Mm-hmm. ne ma dama bëgg a dem si gaal yi mais jour màggal la ñu bëgg a dem. ma ne ko ah gas loolu ba wóor na mu ne yii aram kii gaal bu mu tëgg day yegg mun ne ko waa baax na léegi yow loolu après si waxtaan dem di dem di dem ba màggal bi jege si mu ñëw kër ga yëkkatee xaalis jox ma pour préparation màggal ma léttu defar yëpp après lendemain màggal mu woo ma téléphone ma ne ko pour man da yow dem nga mu ne ma non non dañu boole léegi mu ne ma mais xam naa dañu bàyyi ba coow li dal bu coow li dalee nañ dem. mu ne ko waa baax na ñuy déggante di déggante di déggante ba ñu màggali ba ñëw mu ñëw kër ga indil ma sëriñ ca màggal bi ñu toog di waxtaan noonu waaw parce que la ñëw kër ga parce que kankuraan yi jour bi muy commencé la ñëw ne ma naa ko abal yëre bu mu sol yëre grand bubu abal ko grand mu dem ci jëmboo jëmboo bi lënd mu delloo si ko ne ma aram fóotu ko ma ne ko non non garaawul problème ñu toog di waxtaan nii après ñu waxtaan ba pare mu jug dem bu mu jógee dem nag vendredi la ma woo arama ko naa mënuma dama la bëgg a gis man ne ko lu xew mënuma dama toog ne sama xel bi nekk si yow ndax xam naa su ma la gisul tey parce que boobu mu ngi nekk ba vingt parce que xam naa su ma la gisul tey du doo ma gis samedi ak dimanche ma ne ko lu xew mënuma damay dem ma ne ko sa wax du jeex te man instant damaa tëdd ba ma ah, kon garaawul ma ne ko waa baax na samedi dégguma ko dimanche gisuma ko dégguma ko après man waaw boobu xam naa dem na après bi ma toogee sama kër dégg naa ñu ne ay gaal mais sama xel génn si moom sax ne man tàggu woon na ma mais bi ma toogee ba ay vingt heures laa ci daal sama benn copine dugal ko statut après ma jug dem suñu kër di ñëw fii ma dem xaw ma sax nu ma def ma dem ginnaaw raay fekk fa ay mbokku taalibeem ñu ànd dem hôpital si guddi bi dimanche biñ demee ñu ne ñu ko tudd Fallou Diop nekk fi parce que ñi fi nekk ñëpp identifié nañ leen ñu waa kon nañ ñibbi ba suba. bi ma xëyee ci lënd bi ma woo baylaat moo ki ko doon interview sànq ma woo baylaat baylaat na ma non ba tey gisaguñ ko mën ne ko waaw loo ci xam rek nga wax ma mar mardi la ma woone ma gis nañ ko ma ne ko nag mën naa ko gis bala ngeen ko denc mën ma noonu aram nga ras kenn instant ko gis dañ koy denc noonu ma ne ko man de sama yéene moo doon ngeen yóbbuwoon ko Touba ndax man Serigne Touba moo nu boole mu nekk sama mbokk taalibe bi ñu nekk xale ba tey ñooy ànd waaw xam nga man dama doon ànd ak moom te Serigne Touba rek tax daf ma jege woon lool nag daf ma jege woon lool lool lool lool mardi non lundi ci ngoon lundi ci ngoon laa ñëw coosee di ñibbi te ànduma ak moom parce que su ma fi ñëw moom ma indi di moom moo fi indi waaw mais daal li ma gën a marqué ci moom situation bi nga xamante ne bëgg na ko changé ba ca man mi nga xam ne bokkuma woon ak moom dara su ma waxee man a aram teel bi ngay teel xëy liggéey dafa metti loolu la ma daan wax. benn jour ñu ngi toog dootaa ma ne ko waa galas yow tey soo demoon nii rek mu am nu mu demee man nan laay def mënu ma si aram boobu waa da nga gis lu yéeme barki Serigne Saliou waaw man ba ma déggee gaal gu këpp man dama ne woon dina ci génn ndax dama ko xam jàmbaar la barki sëriñ Saliou jàmbaar jàmbaar ku bëgg liggéey ku bëgg yaayam loo wax ma la aram sama yaay sama yaay sama yaay moom daal li ko modifié mooy pour pourquoi moom mu nekk xale yow doole di liggéey te mënul am man nag doon naa ko jéem a dugg ci façon liggéey bu nekk. ngi waaye nag jamono yooyu moom daaw ma waxi tukki de loolu yàggul man bi ma waxi tukki. waaw wax naa ko ko dama ko dëgg jóg bul dem. soo demee dinaa la boole. man nag dimanche bi laa réccu lan moo tax boolewu ma ko parce que boobu xaw ma woon tamit na nii lay demee. mais li ma mën a wax si moom daal moo suñu ànd diiran li may nekk xale beneen lañu mës a jotee. sama ànd ak moom maa féete woon góor. na ma yàlla jégal mu féete woon jigéen parce que lu ma wax rek mu seddal waaw yenn saa yi ma toog ba ko fàllu man lan moo la neexu si man maanaam baax na baax na nit naa xam naa ne jigéen man li may ànd ak moom yëpp démb laay doo gis way juróom bu jigéen démb man moom sama ànd li may rëcc sama ànd ak moom sama ànd ak moom li may rëcc ban talee ànd ba léegi mooy lu tax boolewu ma ko waaw man loolu parce que man xam naa ne déggal na ma goo xam ne su ma ko newoon kay gunge ma dina ma topp dina ma topp mhm. te ko noonu bu ñu ba si yoon dinaa boole su ma amee dara lu may réccu sama ànd ak moom war gis laay réccu waaw moom de moom daa ñaanal boppam sax ndax nit koo xam ne doo ko àtte xeex mhm. nit koo xam ne du dugg ci lu yoonu nekkul man dama doon dem ba dama doon mer sama ànd ak moom ndax dafa nekk góor bu lawet mhm. dafa nekk góor bu lawet galas dafa nekk góor bu lëbët barke Serigne Saliou ku baax jàmbaar jàmbaar jàmbaar waaw xam naa ci moom lu bari de waaw waaye ñu ngi sant ndax ay dogal la waaw ñu ngi sant bu baax da koy ñaanal yàlla moom sax ñaanal na boppam waaye ñu ngi koy dolli di ñaanal yàlla waaw xam naa galas bu yeewoo. jërëjëf euh, daw na yaram metti na trop trop trop. Euh, li ma gën a rëccu mooy li ma ko boolewul euh, muy ay kàddu yoo xam ne rek euh, soo koy déglu sa xol day metti jeunesse bi découragé nañu ñàkk nañu yaakaar lenn mooy pexe gaal gi te doon loo xam ne rek yaakaar naa mënul nekk pexe ndax loo xam ne da ngay dem xamoo di nga yegg xamoo doo yegg loolu lépp mu ngi ci kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax da ngay dem bàyyee sa wéyjur benn naka goo xam ne poids bi nga koy teg rek yaakaar naa loolu toog bañ ko jox sax moo koy gën kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu sensibiliser waat jeunesse bi euh, Ibou Ndaw lan ngay àddu ci loolu ndax nag euh, métti na booy jóg nga jékki-jékki euh, sa doom dem na lan moo ko yóbbu dem na parce que da doon wuti pour teral la. waaw parce que mhm. moom booy set ay waajuram ñu gëm yàlla lañ. Mhm. maanaam ba lii xewee ñoom delloo nañ lépp ci loxo yàlla. Mhm. xam nañ ni seen jom seen doom ñàkkul jom ñàkkul fayda lii yëpp bëggoon dem pour dimbali leen. mais boo gisee xale dañuy nekk fii xale ñàkk ñu jëm de bëgg nañ liggéey trop. Mm. mais bëgg nañ maanaam li ñeneen ñi di def di tabaxal seen yaayu kër di di dimbali seen yaay ñoom ñu def ko. Mm. moo leen waral ñu xam ñu dugg ci lii. Mm-hmm. waaw mais yow naka nga ko yéegee naka nga yéegee affaire bi. man dimanche bi dama nekk ci lël ba ñuy topp kankurang ba 6 heures daa benn gaan bu duggoon ci gaal gi moom yàlla dimbali ko mu mucc. Mm-hmm. moo ñëw fekk ñu foofu comme ñu fekkee foofu. expliqué ñu ci la ñëw rek nañu waa koñ bi yëpp dee nañ hmm. ma daw jàpp ko mu ne ma làmbal sama tubéy ji ma làmb tubéy ji tubéy ji tooy mu ne ma koñ bi ñëpp dee ma ne la moo leen rey mu ne ma gaal ga moo këpp hmm. ba mu ne ma loolu automatiquement Fallou laa ko jëkk laaj ma ko ana galas mu ne ma galas de gisuma ko si ñu ñu rëcc parce que am na ñu ñu gaal yeneen gaal fort ba génn leen mais gisuma ci galas ba ma wax loolu nag ci la sama àdduna tukki mu góob ko ba tey ma daw ci laa dawee jigo lël ba ñëw ci koñ bi ba ma ñëwee gis koñ bi ni tekk quoi. boobu yëgaguñ ko. boobu koñ bi am na ñu ko yëg benn benn quoi mais pour ñoom ñëpp sauvé nañ boobu koñ bi xamaguñu woon ni lii am na ba ci guddi gi amuñu benn nouvelle. Mhm. parce que ñun guddi gi dem nañ tefes di xool dem nañ hôpital dem nañ fu nekk pour xool ndax fàllu daa sonn wala gaayee ko for pour sauver kooku yooyu ñun ba léegi mënuñu ñëwoon gëm ni Fallou wàcc na liggéey ak ni mu jàmbaaree woon. Mhm. nekk nit ko am jom. ba nii gëmuñu woon ni Fall wàcc na liggéey. moo waral guddi gi yëpp nelawuñu ñu sa fu ñu wax ni am nañu fa feeñ rek ñu daw xool. Euh, xool boobu seet bi naka ngeen ko dundee da ngay ñëw fekk ñeneen ñoo xam ne xamoo leen ñeneen ñoo xam ne mënoo leen identifier ngeen ko dundee en tant que doomu coose mu am fi 14 victimes. Eh, soxna si ñun lu ñu dund nii ñaantuñu yàlla kenn dund ko ci àdduna waxuma la ñun rek ne ñu yàlla kenn dund ko. Mhm. parce que ñun ku xamoon Fallou ni mu jàmbaaree yàlla may ko kàttan. ak bi biñ ko fekk ñun suñu xol neexul wër na sëñ Tuuba gars yi maanaam koñ bi kenn melawul. ñëpp kañ la feeñ Fallou mu ngi feeñ barki démb la feeñ ci ay midi. ci ay midi parce que boobu. naka ngeen yëgee ne feeñ na parce que boobu yéen a ngi toog jaaxle di xaar. mais xamoo leen ba tey fan la féetee. boobu dañoo njëkk a toog fii ci koñ bi ñu woo nañu am na 14 14 koor yi feeñ ci lañu ñu daw dem géej bañ demee géej fekk koor yooyu ñu dugal leen ci ay toile. pour yóbbu leen Almeria. ñooñu kenn mënu leen identifier. en tout ñooñu mën nañu identifier parce que ñu dañoo dem ba Almeria koor bu ñëw dañuy ibbi féminité bu xool. Mhm. bu dee nekkul sa xarit wala sa mbokk. Mhm. ñu tëjaat soog a denc. Mhm. fa lañ ñu woowee rek nañu fàllu feeñ. gis teer na léegi ci la ñuy jugee Almeria dawaat dem géej fekk ko fa bañ demee nag quatre koor yi ñu jee génn ci lañ ko gis. muy sa xarit. nga wax ak moom samedi daanaka ba ay 6 heures du dimanche mu départ nga koy gisaat gisaat ko ci anam boobu. naka nga ko dundee Ibou Ndaw. loolu bokk na ci lu gën a métti. barke Sëriñ Tuuba parce que Fallou moom jàmbaar la quoi. mais Fallou maanaam ni ko gisee noonu neexuñu bu ñu sañoon bu ñu sañoon sax dina wàccee liggéey neneen ñu gis ko denc ko denc bu rafet mais Fallou ñun ni ko gisee neexuñu. tim na ko Sëriñ nañ ko. Mm-hmm. mu sol benn tubay moyo. bu bleu tubay jin bu xotteeku maa ngi naan booy fàllu mi de xam naa ni fipp na bay bëgg a dee parce que jàmbaar la yàlla dogaloon rek ñu fii la yem rek mm-hmm. waaw euh, moment yooyu euh, lan nga yëg waaw moment yooyu soxna sama àdduna dukki na parce que fàllu man xalaatu ma woon ni mosuma xalaat sama àdduna fàllu dina dina kii dina demee noonu mm-hmm. mm-hmm. loolu ku ma ko waxoon du ci àdduna boo ko gëm waaw ah, ba ma ko gisee noonu sama àdduna tukki na mais tamit ma gëm yàlla rek xam ni moom ay rakk yu ndaw la yor yow boo defee noonu rakk yi tamit mën nañoo jaaxle. Mhm. yàlla may ñu kàttan rek. Mm, kon yéen bokk ngeen ci ñi ko yëgal famille bi. waaw parce que ñun bu ñu demee foofu ba gis ko ci la ñu woo suñu yenn grand yu gis nañ fàllu si la ñuy jëwandoo ñoom ñëpp koñ bi wax dëgg fa yàlla kenn manqué wul parce que ñëpp ñu jóge woon si koñ bi booy seet fàlloo leen yóbbu ak ñu meloon ak ñoom mais ku dem ba tiim ko rek sa àdduna day waaw parce que mënoon ñun ñëpp xam nañu dañuy dee mais Fallou mënoon nañ ko mënoon naa wàcce liggéey neneen neneen waaw noo xam ne nii dañ koy denc denc bu baax mm-hmm. man lépp dañ doon waxtaan maak moom mu naan man de Touba la man moom ku ma fi baal ma ko Touba rek ndeysaan affaire yooyu noonu maa ngi ko yow de Daaru Salaam ngay yem ci tooñante noonu mm-hmm. mais sant yàlla rek xëy na yàlla fan lañ ko mujjee denc ñu ngi ko denc almeeru ay numaani ay numaani ñoom ñëpp noonu Euh, muy lu metti euh, ñu dund ko sa xarit nga gisante ak moom samedi ba 6 heures du matin dimanche euh, loolu am muy loo xam ne lu tiis la lu tiis Ibou Ndaw euh, gis ngeen moom la sekkal waxtaan ci li nga xam ne rek moo xew fii ci Mbour euh, ñu ñëw tey ci quartier Coose ñëw ci famille bi nga xam ne rek euh, mooy famille Diop Fallou Diop tey jii moom moo fi ñàkk bakkanam ak ñeneen ñi nga xam ne rek ñu ngi ci koñ bi koñ bi foo tourné rek dëj la xale yi dem ñu bàyyi rek ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi des ci témoignage léegi léegi lay doon sur la 7 bi ci seen émission 7 voix waa yëf yi moom wax dëgg yàlla doon na loo xam ne lu mett la ci ñun waaye nag ñun ay mbokk taalibeem la ndax daanaka ñun li ñuy ànd ak sëñ Fallou ay mbokk yi deretam sax duñ ko ànd ak moom ndax saasu nañu ñooy nekk ba ci man ni son bi ma génne ci màggal gi moom moo ko tëgg bu yàggul dara waaw moom day baax ci cant gi ñun ay cantaakoon lañ mais yëf yi moom biñ ko yëgee am nañ duñu metti waaye nag comme tey gis nañ koor bi ba denc ko jëbbal ko boromam jàngal ko ay xasida ñaanal ko sunu xel dal na ci moom ndax amuñu benn tiitaange ci moom ndax sëñ fàll moom ku baax la tey waaye yëf yi man xaw naa ko yéex yéeg sax ndax daanaka fekk ma woon ci koñ bi damaa génnoon waaye duñ ma woowee téléphone wax wax ma ko it góomoon ne sax moom faatu na ndax boobu ñu yëpp ñu ñëw ci wër koor bi di dem ak hôpital ak ñëw ak yëpp di xool ndax moom faatu na ak faatuwuñu waaye biñ ko yëgee it métti nañu waaye tamit ay gëm kii sant nañ ci yàlla daal wax na wax na ci man waaye man tamit mënuma woon at lu dul mënuma ko mënuma ko tere it ndax xamante nañ ñu ñaar bu baax am na ci loo xam tamit ne responsabilité nit ki bu ko jëlee doo mën lu dul encouragé ko ne ndax xamoo fu mu tollu moom ba jël lool waaw ba bëgg a dem foofu waaw ndax man léeg ñoom dañuy tëgg cant nga fee njurul Dakar ci Sëñ Saal waaye léeg man ma am programme fii Mbour bu ma nee ko man kat dama am programme fii moom danaan ma kon yow xaar ma tëgg sa programme ba pare soog a dem su ma ko joxul dara sax day day day toog xaar ba programme bi jeex mu soog dem moom ñun ñun daanaka ñoo bokk ku ma gis feneen danaan ma an sa mag ji chaque instant onze fee fu ma génnee ñoom dañ naan sa mag ji te alors que bokkuñ ndey ak baay mais li ñuy ànd ak fréquentation bi bu yàgg bi ba ñu doonee moom moom boo xoolee tëgg miir sax li gën a dugal man dama cee bokk ndax man la ci daan waxtaanal ba intégré ci sama mag yi sama mag yi ñooy tëggal sëñ Saliou Thioune man ma nekk ci ñoom man damay way kii sama raxta la moom tamit day way mais daal yëf yi moom métti nañ loolu waaye ñun ay cantaakoon waaw moom kañ ñu ngi ci ñu ngi ci doon xalaat nag waaye xam nga yëf yi dañoo toll foo xamante ni léeg-léeg du ñu sax mën a génn li ñuy li ñuy bëgg de bëgg di wax ci moom mm. parce que chaque dama koy wax man gas li may li ma sékk ak moom nit ñi sax xamuñu ko mm-hmm. ndax dem nañ ba ni minute minute dañoo rusante am na ci loo xam fu ñu fa yeggee am du wax ak man ci yéen yi man tamit dama koy bàyyi ci biir rek ñuy dem waaye yëf yi moom li ma ci gën a mooy ci anam bi bi ñu demee moom loolu moom métti na ma lool ak ni mu ni mu demee ak am na ci loo xam ne nag doo ko mën a expliquer mm-hmm. mais nag parce que ñun lépp fa lañu fekk ñun assisté nañ biñ koy gis biñ koy yóbbu ak biñ koy denc lépp fi lañ fekk waaye yëf moom métti nañ suñu xol lool waaw loolu moom mett nañ lool métti nañ donc ah, xol bu xol bu naqar rek waaw. Mm-hmm. yëf yi moom am nga loolu moom mënta neex ki nga ki nga jigéentool am na ki loo xam ne boo ko dalee du la mën a neex. Mm-hmm. boo ko wax boo ko waxul ni sax du la mën a neex. ci sa biir xol da ngay dund métit waaye nag na nga xam ne nag ay dogal yàlla la nag ñun moom lu mënti am dañuy gëm ne lii du waroon a am rek am. Mm-hmm. ndax koo xam ne daa jugoon pour bëgg a tekki dimbali ay waajuram boo ko ci lii dalee da nga xam ne jàmbaar moom dee na ca waar rek. waaw di ko ñaanal xanaa fa mu jëm gënal ko fa mu jóge kéemaan rek ka sama waay moo dem koo xamante ni euh, man ak moom du ñu tàkkalikoo programme sax bu ñuy dem man ak moom ñooy ànd ba ci màggal gi passé man ak moom ànd dem Tuubaa man ak moom ànd jibisi xam nañ xam naa ko bu baax waaye day day loo xamante ni doo ci mën dara jéemoon ngeen ko nañ ko découragé waaye moom séntuwul woon lu teral ay waajuram. jom rek ko yóbbu. waajur jàmbaar la. te nekkoon na koo xamante ni sama waayu bopp la. ñu dund koy bari na lool ci kafre man ak moom fu ñu toll dañuy kafakre ba ci màggal gi passé ñoo yor ambiance bi bu ñu si dal ñoo yor ambiance bi man ak moom man waykat laa comme sama mag bee mais eh, damay way moom muy tëgg si ci bant yi wala sées yi ah metti na ko trop ndax ku sa doom dem ci géej gi mu demee nii dina metti ci yow lool mu nekk loo xam ne lu tiis la waaye nag lu ñu doole lu sant yàlla rek ndax yàlla mooy dogal lii yëpp sunu boroom waaw kon dañuy delloo suñu sunu xel ci yàlla waaw loolu kase daal moo fi nekk di ko ñaanal dana ko yàlla teeroo aljana firdawsi barke Xaadim Rasul ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa tamit ci barke turandoom boobu El Hadj Fallou Mbacke Baye Mbaye moom daal kéemaan la daal jërëjëf euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ba tey laata ñuy rek tàggatoog Ibou ñu wéyal ci li nga xam ne rek euh, mooy maanaam indi affaire bi muy mbëkk mi Ibou yow mi nga xam ne amaana suñu borom moo weddi ne doo ci bokk ndax ba mu faboo fabu nga tey lan nga mën a sensibiliser xale yi ci waaj bi nga waajoon ci fomm bi nga fam fomm ci moom dem bi mu dem ak ci anam yi mu yi nga ko gisee lan nga mën a sensibiliser jeunesse bi ndax nag wax dëgg yàlla mooy li ñuy wax ak euh, ñàkk pexe am na mais à chaque fois pexe dina am ndax euh, maanaam mbëkk bi du pexe lan nga leen mun a sensibiliser. waaw moom li ma leen di wax rek mooy xale yi ñoom nañu gëm yàlla rek. Mm-hmm. xam ni yàlla jeexul. parce que xale yi amul ku ci ñàkk jot waaye boo seetee des fois xama rek ay wax moo leen ñuy dugal ci rek. parce que mm. nit a leen di tiim naan leen da ngeen a ñàkk jom seen morom yëpp a ngi def. maanaam pression sociale bi bokk na ci li gën a nekk cause bi. barke Serigne Touba bokk na ci parce que booy ñàkkuñu jom. Mm-hmm. mais boo tiimee nit di ko wax yenn wax yi xam bu yàggee dina dugg ci loo xam ne. day fippu waru cee dugg day mm-hmm. fippu. Mm-hmm. barke Serigne xale yi nag soxna si dañoo amul liggéey rek. waaye ñi ngi wax ne ñi ngi nim la ko waxee rek ci tàggatoo ne euh, kii nii euh, maanaam gaal bu mu kii day day day day maanaam daan na mucc peut-être tey lii moo ci am euh, yow lan ngay wax ci ñi nga xam ne tamit yenn saa yi ñu mucc waaye ba yegg ñoom ñooy gën a motiver ñi nekk fii pour ñu ñëw. waaw mais boo seetoo booy xam nga kenn ku nekk ak ni ngay xalaatee ñenn ñi ay complexe lañ ñenn ñi. gars yi nekk Europe bu ñu ñëwee fii di leen may ay dàll di solo neen lu ñuy solo. ñoom ñu yaakaar ni gars yi daal. foofu vie bi tant demuñu foofu du ñu am lu ñu war a am. ñu si bëri loolu mooy ñu. te pourtant mën nga dem ba foofu doo liggéey doo yor. ah que ñun booy seet bëri na suñu xarit yu fa nekk ak suñuy grand mais xam nga booy boo toogee ñoom ñoom ñoom ñi dem ñi xaj yëpp boo toogee ak ñoom di waxtaan. dañ naa la non bay grand yi bàyyi fii dara amu fi. Mhm. grand yi ñu ngi ciy génn. Mhm. diw mi ngi tabax diw mi ngi kii xam loolu lañ lay wax quoi mais boo xoolee si biir da ngay xam ne ñii nii bëgg nañoo am comme ni grand yi am. te wërsëg. maanaam rêve lay doon. rêve lay doon. Mhm. waaw euh, rek seen morom yi dem ñëw vacances xam des fois ak ni ñuy solo ak ñuy dundee ñoom di leen may ay weccat. Mhm. ñu toog fii mënuñoo am loolu. Mhm. dañuy jàpp ne tant que demuñu rek duñu am loolu. duñu am loolu euh, lan nga ñu mën a nettali comme loo mujjee dund moom lu la frappé loo xam ne jàpp na la lool lool lool. samedi ci guddi maanaam la ñu mujjee def reer la mujjee def ay 4 heures du matin boobu ñu ngi dem jënd ay ginaar fii ñëw di reer mu naan ma mu ngi tooñ beneen booy bi ki nga xam ne da cee gaañu tamit muy mbay caam suñu booy mu naan moom dafa dafa da ci ci la bokk moom dafa làkk ci la bokk mu mhm. ngi naan mbay caam yow mënoo lekk ginaar di ko tooñ noonu ñëpp di reetaan boobu ñoo reerandoo ñun ñëpp man mii maa doon defar meew. moom Mbaye Thiam ak yow. ak waaw. ñoom mhm. Mbaye Thiam ak ak ak ñun ak bëri nañ ak suñu grand yeeg ñëpp. Mhm. parce que ñun ñëpp ñoo nekkoon. xale jigéen ñi fii lañ toogoon moom moo leen fekk fii nee na dem ci kaw ñu di balance bu leen toog fii di wér maanaam Fallou ku bëggoon boole la. Mhm. waaw te tamit dundam yëpp da koo liggéeyal Serigne Touba. parce que faa ko fekk Fallou programme am du dem boîte du dem ci lu ñàkk fayal du dem concert ay cant lay dem. ay bàq xiin ay cant bàq xiin ay cant bàq xin mm-hmm. mm-hmm. maanaam liggéey dundam yëpp daal liggéeyal ko sëñ Tuuba mm-hmm. ba ci màggal lépp ñoroon doon ànd ay oto lu ne ñu dugg ci màggal gi passé ñoo ànd ba Touba ba tëdd. Mhm. barke Seydina Mohamed. Mhm. Euh, tey euh, ñu bàyyi la rek laata ngay tàggoo nga wax ñu loo koy ñaanal lii am am na metti na euh, di ñaan yàlla suñu borom may leen xolu muñ lan ngay ñaanal fàllu ak lan ngay wax ay waajuram. waaw Fallou man ay waa waajuram laa njëkkee ay waajuram maa ngi wax ñu muñ rek xam ni Fallou amoon na yéene si ñoom. Mhm. nañ ko ñaanal. ñu ñu fi des tamit ay seeni doom lañ. waaw fàllu lépp taxawaay bu mu amoon yéene boobu ci amoon mu amoon si ñoom yàlla ñu yàlla dimbale ñun ba ñu ñëw ba def ko si ñoom. moo tali ko moo tali ko. Mm-hmm. parce que fàllu ku amoon jom la. waaw man moom lu ma gën a frappé ci moom xam naa ne ku jub la ku am jom la. Mm-hmm. parce que nit koo xam ne nii fàllu lii rek moo ñu mënoon tàggale muy dee. man de masuñoo ànd muy ñaan kenn dara wala mu topp ci ginnaaw kenn di mm-hmm. ñaan. da doon ñafeel boppam. da doon ñafeel boppam. barke Serigne Touba lan la la daan wax ci yaayam. waaw moom yaayam moom Fallou ku bëggoon yaayam la bëgg na yaayam bu pare dafa rus yaayam. Hmm. Fallou da doon def dara sax wala mu jàpp ci dara bu yaayam xeer day bàyyi. billaay bëggoon yaayam la. Hmm. ku rusoon yaayam la tamit mais maanaam moom bëggoon bëggoon tekk rek. tekk rek moo waral lii moo waral lii. man moom li ma koy ñaanal mooy Fallou fu mu fu mu dem yàlla ko gënal fu mu jóge. amiin. man de tiiruma ci moom parce que koo xam ne nii dundam yëpp sëñ Tuubaa la ko liggéeyal mhm. te mosul def lu ñàkk fayda wàllu mosoo koo gis ci lu ñàkk lu baax waaw ma bàyyi la rek nga daal di tàggoo sensibiliser waale xale yi ndax nag euh, jamono métti na euh, la vie est la vie est dure mais nag yaakaar naa ne du raison pour mën a mbëkk dugg ci gaal gi euh, tayle sa bakkan kon ma bàyyi la rek Ibou Ndaw ñu daal di lay mbaayoo fomm nga rek waaw ñun ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla daal. ah fomm nga de xanaa. waaw ah, sant nañ yàlla baax ñu ngi koy xam naa ne suñu xel dootu nekkati ci. Mhm, ñu bàyyi la nga daal di tàggoo. mais ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax ci seen teewaay. Mhm. mais xam nga jeunes yi moom maanaam mënoo leen conseiller ba ñu ba nga dégg lu ñuy wax. Mhm. parce que booy dem ni ñu bëri boo leen yëgoon sax wax leen du tee ñu dem. parce que li ñu gis rek la ñuy gis. bëgg-bëgg bi moo fay moo fay nekk. foofu ñu dem ba lii xew-xew. waaw parce que foofu lañ toll quoi di ñaan état bi tamit ñu dimbali booy. Mhm. Sénégal booy dee ci kon yëpp ay jeunes lañ booy seet kenn amu ci. vingt cinq ans lañ waaw. Hmm? na 14 suñu ñu na 14 ñoo xam ne nii ci koñ bi secteur bi yëpp boo boolee ci wes bi yëpp day ëpp 14. Hmm? ba ñu compté démb na plus de xaw ma 24 xaw ma. ci coose mi ci coose mi. Ah, ñoo xam ne ñëpp ci koñ bi lañ ñii tamit sorewuñu ci alentour. koñ alentour yi. looy tàggoo Ibou Ndaw bu ñu jaalee fii xëy dem jaale fee noonu la ñuy def tey suba mm-hmm. dañoo xëy di jaale Fallou démb lañu doon ko saraxal waaw gis naa leen yéen it euh, kuréel gi gis naa leen yéen a ngi jaabante yéen a ngi dem di indi jàpp ci euh, mbokk taalibe yëpp ñëpp taxaw yéen it euh, seen taxawaay rafet na waaw mais nit moom loolu nga mënoon sa mbokk taalibe rek <coughs> man daal li may ñaan mooy état bi mu jàppale booy parce que Fallou mi làqu nii projet bi xeex na ci bataay fii la doon ma fekk manifestation na mën nañ dem teel a tax barke Seydina Mohamed. benn jour maa ngi naan ko Fallou xam naa li ñuy xeex nii sax duñ ko fekkee mais bu booy ñëwee jël muy reetaan barke Seydina Mohamed. Hmm. mais état bi na jàppale booy ubbi ay ñu liggéey Sénégal am na espace. Hmm. nañu jàppale booy ubbi ay ay kii ñu liggéey ay usines yu bëri ñu liggéey. Hmm. parce que fii bëri na ay semence booy yoo xam ne amuñu métier mais da leen jël dafa leen ay formation mais boo bëggee toog fi nga toog rek naan booy. dañoo bëgg dem booy yi nii te wutaloo leen solution loolu du dem. du dem waaw booy yi foog ngeen gaaw si ñoom wutal leen solution. Mhm. loolu ñu ngi koy ñaax. maanaam lii solution dafa war a taxaw léegi léegi daar daar. waaw ñu ngi lay jaajëfal Ibou Ndao. waaw mhm. ñun ñun ñëpp moom la ñu àndaloon ci élection yi te ku ñu bëgg la te gëm nañu am na yéene ci Sénégal. Mhm. mais nu mu mën a gën a gaawee ci booy parce que ñun ñii yor nañ suñu métier ñu ngi liggéey ñu ngi sant mais pour suñu morom yi liggéey yi moom. ñu ngi mën a gaaw a jàppale jeunes yi daal mu def ko quoi te lii ñuy ñaan yàlla mu bañ koy amati. Mhm. waaw te état bi jug si nag. parce que état bi ñoom bu ñu bëggee lii jeex day jeex. Mhm. parce que Sénégal réyul bu ñu jëlee ay matuwaay ci géej gi. benn gaal bu leen romb bu leen neexoon benn gaal bu leen romb dem stade. Mhm. waaw nañ ci gën a taxawaay mu gën a baax waaw a baax ngi lay jaajëfal Ibou ndaw waaw ñu ngi sant yàlla remercié nañ la bu baax a baax di la ñaanal yal na la dëddoog jàmm yal na la suñu borom defal xolu muñ ñu jaajafal leen bu baax a baax yéen tamit yéen ñi doon euh, teewlu euh, la 7 TV seen émission 7 voix du cœur euh, comme niñ ko tàmm defee chaque mardi du moins 21h bu jotee gis ngeen li nga xam ne rek moom moo xewoon dimanche Euh, huit euh, ci weeru septembre euh, gisul am na ñu ñu identifié wul euh, ñu bàyyi koog nga xam ne rek euh, loolu mooy seen domaine ba tax na nag ñun li ñuy def rek mooy ñaax xale yi wax leen ne mbëkk mi du solution ndax nag loo xam ne yaa ngi dem xamoo di nga yegg xamoo doo yegg ka yegg ci risque la eggee kon nag euh, jaru la topp di nga dem di nga génn àdduna des fois boo yeggee tamit mën nga yegg ba foofu doo am liggéey loolu lépp mi ngi ci ndax nekkul nag Europe la vie rose lépp lépp lépp a neex li ngay nekkee fii di kër kër yi noonu ngay nekkee foofu di kër kër yi kon xale yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndax yenn saa yi nga dem daal di dëddu bàyyee say waajur pois ba nga xam ne euh, amaana li des ci seen giiru dund duñ ko attan kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax le 8 la xewoon muy dimanche bi euh, le 8 septembre fii ci fi nga xam ne rek mooy Mbour euh, gaal gi daal di bàyyeekoon fii rek dem wutali tugal daal di rek këpp muy loo xam ne lu metti la dese yi bëri na lañ ñëwoon ndax euh, daanaka ñi ngi naan quatorze personnes ci même quartier waaye ci Ibou Ndaw li mu wax ëpp na ko ndax ñoom li ñu compter rek war naa mat vingt quatre euh, sans compter yi nga xam ne nag euh, doo ko sax mën a xam kon nag ñu bàyyi xel bu baax a baax jaajëfal leen bu baax a baax ci liggéey bi ci li nga xam ne rek mooy maanaam li tax mu yemb ku ci mel ni Issa Pouye ak wàll ak kebe ci wàllu cadrage bi jaajëfal Ousmane ci logistique bi. production bi ñuy jaajëfal bu baax a baax euh, waa ñoom Papis mbay euh, waa euh, waa montage tamit fàttewuñu leen fàttewuñu kenn merci beaucoup Ndeye Pétaw moom it bokk na ci li facilité la liggéey bi di jaajëfal bu baax a baax ñëpp di leen wax fi amaani la ngeen jëf kon ba beneen numéro incha allah sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur merci